kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di siyaar bu baax. tur bi naka la. Ibrahima Mané. Ibrahima Mané tey ñu ñu ñëw file ci pikin ginnaaw raay euh, di waxtaanee insécurité bi nga xamante ne daal dinay am ci réew mi muy ci côté agression yi muy ci côté faat bu bëri bi naka ngeen ko gisee ak ban jàngat ngeen ci am. bala may wax ci laaj bu ngeen ma laaj eh, man dama leen dama leen di sant di leen gërëm si ñëw bu ngeen ñëwee ginnaaw raay eh, ci ci weer bi mois de septembre 2024 ñun kontaan nañu waa Guinaw Rail yaakaar na na ñëpp dinañu bég eh, bala may may wax ci eh, laaj ba nga ma laaj d'abord li ma bëggoon wax je m'adresse eh, au gouvernement damay bëgg lancer un appel au premier ministre monsieur Sonko ndax na na ne sénégalais yi xeex nañu ngir moom na leen delloo njukkal na sénégalais yi sonn nañu les familles souffrent la calebasse de la ménagère souffre léegi fu mu nekk nii ku añ boo mootul say doom duñu reer donc nañu góor góorgóorlu ñu dund bi bu baax a baax bon ñun ay chauffeur lañu te ay chauffeur ay chauffeur clando lañu te ñun fu mu nekk nii par cent franc la ñuy daw par deux mille franc course et gasoil bi cher na essence bi cher na gouvernement bi dañu dañu koy tàllal suñu loxo nañu jàppale. mu wàññi eh, carburant bi bu baax a baax wàññi ceeb bi bu baax a baax eh, lijjante ni ni xale war a mun a jànge ndax suñu doom yi dañu bëgg ñu jàng tamit pour ëllëg ñu ñu doon suñu relève eh, fu mu nekk nii soxla nañu université si si biir si biir Guinaw Rail kay merci bo lu jëm ci affaire insécurité bi moom man. surtout lu am euh, technopole loolu man dama ko jàppe ne lu ëpp la warul fi warul mun a am warul mun a am ci senegal ndax suñu maam yi suñu suñu suñu sëriñ ñaan bu ñu fu ñaan waru waruñu ko woon ginnaaw ndax tey bu bu fekkente ne ay nit dañuy am fiit jël ay ngànnaay dem fekk si doomu jàmbur ci biir néegam benn ba koy faat ah man yaakaar naa ne loolu dëgg yàlla ci barke sëñ Bamba billaay loolu moom kay lu ëpp la lu ëpp la léegi nag ku ko def man moom kay euh, sama loxo ba ci kaw nañ ko faat comme ni mu reyee doomu jàmbur doom doom la doom bu ji euh, euh, jigéen bu ombee omb nu mu mittee ba mu am ba mu jur doomam ba doomam commencé di ko jàppale yow nga nga dem ci biir néegam nga fekk ko foo nga faat ko surtout faat sur un seul coup doo doo koor c'est pas c'est pas. ñu gis ne d'accord ñu gis ne ba ñu ne rey ba léegi koo ne Pikine ginnaaw raay laa jëm sax dañu naan duma dem foofu ñu takkal leen benn étiquette boo xamante ne nii maanaam étiquette bu ñu ñaawlu la naka ngeen ko gisee yéen ñi nga xam ne yéenay dund fii jamono ji non pourtant fu mu nekk nii sax da ngay dugg sa biir néeg daal na ko doo mun a neloo ba yéen door e, sa buntu néeg e, léeg-léeg sax nga fàtte nga foogoon ne da nga ko fàtte tëj. nga jógaat xoolaat bu baax ndax tëj naa sama buntu wala tëj naa sama palanteer ndax ndax kenn xamul ton ennemi fan lay jóge bala mu lay fekk sa biir néeg lor la loolu moo tax fu mu nekk ne ñun suñu xel ginnaaw raay dalutul mënutuñu nelaw guddi mënutuñu dox bëccëg eh, na gouvernement bi tamit taxaw surtout je m'adresse à la police à la gendarmerie aux aux soldats aux militaires Euh, vraiment ñu jàppale euh, euh, population bi ñu gën a yokk sécurité bi. non fii moom kay lu ma la wax kay kenn mënutul génne kenn mënutul génne même sooy génne sa safit mu ngi ci kaw yaa ngi gëstu de droite à gauche surtout ay côté timis léegi léegi arène bi ñu indi fii nii ah man si sama gis-gis gën gën naa yokk insécurité ak Guinaw Rail léegi nag gi vraiment. nañu yokk sécurité bi a Guinaw-Rail bu dee sax dañuy mën a doole effectif de la police moi je suis entièrement d'accord merci beaucoup à vous